te ci xibaar bi daal moom lañ fi daal di wàccee noonu ci benn accident bu am ci route aéroport bi ci benn 4 x boo xam dafa saaraan daal di dal ci benn camion boo xam daal ngi gaare woon ñoom ñoo ci nekkoon ndax ñoom dafa am ku doon ñibbi fële ca France euh, ak ay rakam doon ko gunge waaye nag ñoom ñoo def accident ci oto boobu euh, bi ñu defee accident bi nag ñaar faat na ci ñett am ci gaañu gaañu ñaar ñi ci faatu nag mooy ki doon ñibbi waat fële ca France ñi koy gunge moom faatu na yaayam faatu faatu na waaye ñetti rakkam yi mu àndaloon ñu ko bokkoon ci gunge ba ñoomi dañoo am ay gaañu gaañu jamono ji